sama jëkkër dafa liggéey ba takk ma sama wujju liggéey ma ba déjati ma ci say bi man nag dama doon liggéeyal benn waay si service bi boo koy liggéeyal dafa fekkoon boobu jabaram dem village mu jël ma pour ma remplacer ko di ko liggéeyal nekkuma woon nag première personne bi nga xam ne moo doon gérer mais dama fa doon liggéey bi ma fay liggéey waa ji gis ne man mii kat am naa fulla ci li may def mën naa ko ba pare boole ko dama ko yàqal xaalisam mu daan may tijjil benn cosmétique en face ci woon liggéeyee may gérer cosmétique bi mais jabaram ku fa mës ñëw di liggéey dina fexe ba déjati la fa parce que bëggul kenn nekk ak jëkkëram léegi man bi may liggéey entre temps waa ji xam ne man mii kenn mën naa li may def bu daan may proposé mariage bi mu ma damay takk man tamit ma daal di bañ di ko mën liggéey mu fi indi ak lu ma am pour jàppale samay waajur bi ma ko waxee loolu ndekete metti na ko waa ji aussi daal di jàpp ñaamburam kon tamit ma continuer sama liggéey quelques mois après waa ji daal di ñëw indi saafara bi indi saafara ne fi fii kat fii sanc bu bees la te dañoo am ay concurrence xam que peut-être làmmiñ baaxul damaa bëgg saa yoo xëyee ngay laal ci saafara bi comme ça nga xam ne dina la mën a ci seytaane man tamit ma ne ko amul problème léegi man tamit saa yu ma xëyee ma laal ci saafara bi affaire yooyu nekkati saafara boobu nekkul woon pour bët ak làmmiñ mais pour fexe ba takk ma la gën a mën ba ma laalee saafara bi si lii si laa gëj a xam lu ma nekk waaye lu mu wax ma ne ko waaw bi mu nee ma damay takkaat ko waxee waaw laa ko wax. sama yaay début bi dafa bañoon sa papa nag yooyu ko kilifa la bi mu daal ma laajee ma li ma ndax bëgg nga ma dafa bëgg naa mu daal di takk sëy bi bi ma sëyee ni sëy bi bëgg suma ci dara dañ maa xabtal su ma toogee sama bo bi di métti mel ni dañ naan ma demal demal bu toog ci sëy bi après man tamit ma daal di retourné waat sunu kër ma retourné waatee sunu kër sama yaay tamit daan may jël di faj di faj fu nekk mu dem fa. fu mu dem benn baat bi lañ koy wax kii dañ koo xabtal ba fa muy sëy du fa am doom ba pare dem rek mooy nekk ci xel bi fu ñu dem presque sama yaay yóbbu na ma plus de sept personnes mais tout le temps même wax bi la ñuy wax entre temps diggante ëmb naa taxaw ma ko bi ma ëmbee ko man daal damaa jékki-jékki si yàgg rek ëmb bi daal di yàqu ma di waa man barki démb laa gis samay règle tey ma gisaat samay règle ndekete boobu nekkul règle ëmb bu yàqu la bi ëmb bi yàqoo ci nag jéppi waa ji bañ ko dis ko ak gis sama wëcc te laa yemale ñu daal di fexe ba sëy bi tas mu wéy ma sama baat bi ma béy sama baat ma demaat suñu kër mais ba léegi liggéey bi dañoo chemal ndax gis góor ak gis sama wuute te laa yemale gis nga su ma nekkee ak nit ba commencé ñu ko wax wax ñu ko métti wala nit ki jékki-jékki dem bàyyi ba ndax sama xol bi day jékki-jékki tàng te lan moo koy def bu nekk loo xam ne lu métti la manqué dund ba doon ñaan ku ci nga baaxee